a a anyami nyami achuku chuku eh, achaka chaka atorojo morojo amorojo torojo waaw comme ni nga ko waxee woon rek yàlla def na noonu lañ ko defee kër gu ci ne borom kër gu nekk joxe na ñaari bi min ma xaymaa lim ma waxoon ko toll na ci quatre cent mille waaw ñu woon nag na ñëw waxtaan ceeg yow boo xam ne mën a am ak gaaw am nag rek baax na am na ci solo xam nga daaw yëkk mi ngeen fi indi rëy na lool tubaar fa kànt waaye nag ren fexe leen ba indi yëkku ëpp yëkku woo. incha allah incha allah ah, incha allah incha allah te amu nañ ci goo xam ne day am gëres. <laughs> am boos. <laughs> am jaay mu ngoog waaye nag ngalla bu leen fi indi nag nag bu ñuul. Hmm. ndax rabu dëkk bi. dafa bëggul ñuul. Hmm. te bu leen fi indi yëkku woo xam ne day mbëkk gu ne damaa sonn ci kalaame bi. Hmm. damaa sonn ci kalaame bi. dëgg xale yi duñ bàyyi nag yi duñ noppalu. Hmm? nag moom faaw faaw fexe leen nag bandi fi yàqu bu nooy. ndax daaw moom li ngeen fi andi moom naara mu mujjee yàq ci koñ bi. am na solo am na solo yàpp day nooy yàpp day nooy <laughs> yàpp day nooy loolu am na solo lool <laughs> am na solo lool waaw léegi nag damaa bëgg rek ngeen jug dem xool yëkkaw. dëgg waaw. mën ngeen jug léegi dem xool. waaw kay jërë ngeen jëf. ñu ne dañuy yëggaale kër ga. waaye yow gisuma sa borom kër gi. ah daa xëy daa xëy maa ngi ah def ngeen lu baax jërë ngeen jëf. waaw kay alhamdulilah. alhamdulilah na duuf nag na duuf. nag duuf. <laughs> duuf duuf. <laughs> alhamdulilah rabbil alamin. xanaa ma jub jàpp nag bismillah. ceema del kesel ngel siwa suus anda cuuray lay simmi dañno ceema del keselal on dakaru lay sa renaki mi hootata waaleykum salam a ah, ah, lan lan ah yow sama waa ji bi yow gën naa la gis kono teg daaw laa la mu jéegi dëgg la wax nga dégg wax nga dégg ah. na ngeen def ak coon maar cuuri nay njardi boo lañ ko ñu dina bëggam nag ah nag bii de njëg moo ko fi baax ah waaw waaw njëg de njëg de moo baax jërëjëf xool gis nga gis nga nag bi waaw gis nga sëñ laan yéen li ngeen nekk su may wu daaw daaw jéeg ak daawaat jéeg moo tax waaye wax dëgg yàlla nag bi nag bi de barki yàlla al barka raw naa la naa la barki yàlla raw naa la barki ko deux cent mille de deux cent mille deux ba léegi raw koolal barki Sikh Sadibou Hamadou umul laa la wax koolal nag bii faaw nga defal tegal ma ci dara même bu dee sax vingt-cinq mille vingt-cinq mille sax boo ko. ma ne après nga jël boo nangoo deux cent dix mille ñu jox la léegi dem ñun loolu lañ yor. waaw baa ngi dem waaye. kaalis kenn du ko joxee noonu ah ma ne kaalisam ñëwul waaye. kaay kaay kii moom waa quartier moom du ñuy wax dara nag bu weex na tal te duuf lii la lii nañ ci bëggoon te am nañ ko waa quartier bi moom duñu dootuñu wax te yi sax danañ kontaan yi duñu bëgg genre yi nag moom lañuy tufe tufe dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kii de moom weex tàll sax man lu ma si gën a neex weex tàll la def ak bos beeg yooy surtout ma loolu mu loolu ñu xu am na ko am na ko waaw Mm-hmm.